Euh, mbokk yi comme ni leen ko diggee woon tey ñu ngi seen émission gëstu ñu ngi ci ñetteelu partie bi incha allah rabbi ci wàllu lasraar point bi ñu nekkoon rek mooy di leen wax di leen jàngal nit boo bëggee dugg ci liggéey baa nga dugg ci say moo xam góor nga wala nga jigéen nga wala lu mën a dugg ci àdduna rek nga xool ndax baax na wala baaxul ci étape boobu lañ nekkoon incha allah rabbi dinañ dem léegi ci kaw plateau bi indil leen. Euh, li nga xam ne mooy troisième partie bi bu ko defee kenn ku nekk mën koo defal sa bopp njariñ la ngir àdduna sépp leneen li ma yokk rek mooy képp koo xam ne da ngaa bëgg a question nga woote ci numéro bii ngay gis bu ko defee question bi dinañ ko jot te buñ ko jotee incha allah dinañ ci di tontu kon ñu dem léegi ci plateau bi rek ñëw ci troisième partie l'asrar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla suñu borom ci kattanal gim ñu kàttanal bañ dellu siwaat ci lii nga xam ne jariñu ak jariñe képp lañ ci jublu mooy émission gëstu tey ñu ngi ci ñetteelu émission bu jëm ci wàllu lasraar comme ni ñu ko waxee léegi rek thème bi duñu ko yàggal mooy lan leen waxoon ne ne nit buy dugg ci sëy mbaa muy dugg ci liggéey ak nit mbaa mu ànd ak moom projet mën na koo seetal boppam ci lañ nekkoon dañoo ubbi bunt bi nag ba nga xam ne kiiraay du ci am barrage du ci am ba loo mën a jàng rek di nga mën a accéder su ko defee tey ñu ngi nekk ci troisième troisième partie bi troisième partie bi ñu nekk tey mooy lasraar kon al asraar lañ nekkoon ñu ngi nekkoon ci lan nekk defoon nañu xuruuf defal nañu alxuruf alxuruf mooy maanaam misaaloon nañ ko ci mu gën a yomb ci ñëpp rek parce que dañoo bëgg ñëpp jëriñu ci muy alphabétisation bi nan la ñëwee ci arab ba waxoon ne tey boo defee alif ba jiim dell lu ci nekk adat lañ tolloon kon tey weesu nañu xaraf yi waaye ñu ngi nekk ci lan mooy al adat adat gi mooy waxoon nañu ci ñaareelu émission bi nan ngay def ba jël leetre bi nga def ko mu nekk benn chiffre loolu nag ku bëgg am tableau bi dangay dem ci suñu page Instagram bii ñuy bind boo demee ci page bi rek saabu bu bi jàllee saabu bu bi ñuy jàngale jàlle rek di nga mën a am euh, exemplaire bi foofu kon loolu nañ ci bàyyi xel su ko defee damay bañ a jël temps rek képp koo xam ne nag jël nga alphabétisation bi nga def ko ba pare dañ lay wan nag exemplaire bi tey naka nga mën a jëlee ñaari tur ak seen tur yaay boole ko jox la benn benn benn benn benn benn non boo xamante ne benn lay doon wala boog benn chiffre par exemple soo bindee sa tur yow moom Modou mbaay soo bindee Modou Mbaye Modou mbaay Modou Mbaye benn ismu la ismu ismu kon am nga fii benn nom am nga fi benn nom waaye dangay def ismu umuha mooy mooy turu yaayam Euh, isbu yi nga def turu yaayam par exemple nga def benn tur rek du ma def turu yaay Moodu Mbaay waaye par exemple nga def asamaau asamaau asamaau li muy tekki mooy asamaan rek kon am nga turu Moodu Mbaay ak turu waaye juróom bu jigéen léegi waxoon nañ ni miim 40 la waaw nekk 6 daal nekk 4 ba nekk 2 alif nekk benn yaa nekk 10 léegi li mooy ismu Modou Mbaye kon boo jëlee dangay jël 40 ak 6 mu nekk 46 jël nga 40 ak 6 mu nekk 46 nga boole ko 4 bi mu nekk 50 am nga fii 52 am nga fi 61 waaw am nga fi 50 am nga fii 61 bi nga am 61 nga amaat fii mu nekk 71 kon Modou mbaay daal turam 71 la. 71 lii mooy turu Modou Mbaye waaye duñ ci yem dañ koy boolee ak turu yaayam kon turu yaayam bu fekkee asamaaw la asamaaw alif dafay nekk 1 laam nekk 30 siin nekk 300 siin nag daa xaw bari siin bii dafa am ñaari siin trésetation am na benn siin boo xamante ne siin nii rek la 300 la ñu gis ko nii am na siin boo xam ne siinu moo jamatun la mooy siin bu am tomb yi bii dafay nekk 1000 kon ñu bàyyi ci loolu xel siin bi 300 la bii 1000 mais asamaa ku ne xam na du am siin bu tooy parce que nekkul asamaa waaye asamaa rek la kon boo jëlee yaa ngi am fii 1 ak 30 ak 300 fii nga am fi alif yi benn rek ngay jël muy 1 kon yaa ngi am 301 330 331 kon li ngay def mooy da ngay boole 331 ak 71 331 71 boo jëlee 30 yi teg ko ci 70 dafa lay jox 100 nga jël 1 bi ak 1 bi muy 2 kon yaa ngi am 401 loolu mooy adat kon adat jàng ko am na importance am nga fii cent 401 mooy turu Modou Mbaye ak turu yaayam donc lii rek nga defaat ci beneen fànn bi tey boo doon xool Modou mbaay ak euh, euh, euh, ak benn soxna rek ci misaal ndax mën nañoo ànd sëy nga bind tur bu mel na daba daba daba nii rek lañ koy bindee mais amal ku biir nag daba waaw daba nag par exemple daba mbaay daba mbaay am nga fii daba yaa ngi am turu yaayam mu ne al ard al ard al ard kon lii suuf rek lay tekki al ard suuf lay tek waaye ci misaal bu doon mooy yaayu daba njaay kon dangay ngay adat yaa ngi am fii 4 am fii 2 am fii 5 am fii 2 encore am fii 1 am fii 10 fii yaa ngi am 1 am fii 30 am fii 200 parce que ra 200 la daat nekk euh, euh, euh, nekk quatre-vingt-dix kon nga amaat fii quatre-vingt-dix kon léegi jël nga turu Modou Mbaye ak yaayam mu jox la quatre cent un léegi dangay jël turu Daba Ndiaye Daba Mbaye ak turu yaayam dégg nga kon al ard mooy yaayam jël nga Daba Ndiaye yaa ngi am fii quatre plus deux plus cinq waaw kon yaa ngi am fii onze am nga fii onze fii nga jël 2 ak 1 nga am 3 ak 10 bi muy 13 kon yaa ngi am fii 13 kon dégg nga kon loolu turu dabambaay 13 la rek 13 waaw dabambaay 13 la ak 11 kon yaa ngi am fi fii 24 kon turu dabambaay daal moom ak santam yëpp yaa ngi am fii lan laa wax léegi 14 yaa ngi am 14 dégg nga lii lu am solo la loo xam ne kenn ku ci nekk boo ci jéemee gëstu sa xam-xam dina gën a xóot na ma koy waxee nag man awma intermédiaire wala ay barrage wala ay kiiraay yow mu nekk sa biir kër sax di jàng nekk médecin sax war ngaa mën a am ci li accès parce que am nga benn lettre boo jàng ba xam ko kon am nga fii 14 ni ngi xool fii lan ngay am am nga fii 200 am fii 90 muy 290 290 boo ko boolee 30 yi yaa ngi am 220 kon 220 nga am fii ak 200 deux 21 222 deux deux ngi fi 222 deux dégg nga yaa ngi am fii 222 222 nga am fii kon léegi li nga def mooy da nga jël 222 yi nga boole ko 14 bi bi ñu ci boolee 14 bi euh, yaa ngi am 20 plus 10 yaa ngi am 30 33 kon yaa ngi am 233 233 nga am fii du noonu la léegi 233 yi nag mooy jumla bu mag bi. mooy ismul kabir al ismul kabir mooy ci tubaab rek al ismul kabir al ismul kabir mooy mooy nom le nom complet rek al ismul kabir mooy nom complet bi kon nom complet bi yaa ngi am 233 fii fële amoon fa 401 léegi li ngay def yomb la da ngay jël 401 ak 233 401 ak 233 boo ko doon calculer calcul mental li ngay am mooy 400 200 yaa ngi am foofu 600 33 1 e, yaa ngi am 34 kon da ngay am 434 mooy ism bi yëpp nag mooy jumla bu mag bi jumlatul kabir dégg nga jumlatul kabir bi li ma léegi sax fàtte naa waaye yaa ngi am 600 634 kon 634 nga am ci Modou Mbaye 634 léegi lii mooy jumla bi nag kon lii rek. tënk na lu baree baree bari su émission bii di ñëwee nag dañuy def conclusion yi ba yow ñeenti émission yi gàtt yi rek boo ci sukkandikoo ak nga dugg suñu page ba mën a xam li nga soxla comme tableau bi li nga xam ne mënuñu ko expliquer ci temps bi waaye boo ko xoolee comprendre ko danañ ko indi ci suñu page Instagram su ko defee boo defee nii rek xam nga ni Modou Mbaye 601 la à suivre ci émission bii di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.